maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm j'avais beaucoup de préoccupations mais comme trois minutes la am monsieur le ministre je voulais féliciter le directeur Mamour Diallo le ministre Issakha Diop et ma euh, Madické Cissé pour l'excellent travail effectué cette année ci opération de curage préhivernal ils nous ont permis de ne pas vivre cette année les émeutes de l'eau donc félicitations à eux je leur ai dit au téléphone et c'est extrêmement important Euh, je voulais parler aussi de la prolifération des unités de mise en sachet en banlieue loolu en rapport avec le ministre de l'intérieur mën ngeen ci jël ay mesures yu baax a baax et je pense aussi les branchements sociaux monsieur le ministre continuent euh, encore d'être une demande sociale en banlieue d'autant que ba léegi ci pompe jàmbaar yi li ñu ciy naan dafa bari loolu jàpp naa ne war nga ñu si mën a dimbali bu baax a baax ci branchements sociaux yi mais monsieur le ministre je ne suis looloo taxoon tey ma bëgg a jël parole. Euh, j'ai ici la lettre réponse du gouverneur de la région de Dakar j'avais demandé à la SONES de mettre à la disposition de notre collectivité territoriale Yeumbeul Sud benn espace de 6000 mètres carrés seulement sur benn total de 32000 mètres carrés ci usine boo xamante ni usine de chlorisation la en 1948. la collectivité locale de Yeumbeul Sud ave mis à la disposition de la SONES trent 32 mille mètres carrés pour y implanter l'usine de polarisation espace bi ñu ci utilisé nekkul au tiers am na loo xamante ni moo juxte li nga xamante ni mooy mairie bi ñu soxla ci 6 000 seulement mètres carrés ci loo xamante ni 32 000 yaa ngi nii. ça n'a rien à voir ak li nga xamante ni mooy projet d'extension yi ñu ma wax ci réponse bi nga xamante ni moom la ma gouverneur jox. et loolu li ñu ci bëgg a def je vous interpelle en tant que ancien ministre de l'éducation Yeumbeul Sud fait partie des meilleures collectivités territoriales en termes de performance PACASEN et je parle sous le contrôle du ministre de du budget Yeumbeul Sud l'année prochaine aura 320 millions en termes de PACASEN rares sont les collectivités territoriales yi dépassent 200 millions la ville de Dakar je donne un exemple 219 la ville de Guédiawaye 144 millions la ville de Rufisque 74 millions au moment où ma commune qui a fait des performances aura 320 millions dañ ko war a consacrer à la réalisation d'un lycée technique qu'est-ce qu'on les formations alors si on veut véritablement 6000 mètres carrés sur une surface qu'on vous avait donnée en 1948 te defuloo leen fa dara et loolu jàpp naa ne yow war ci mën a interpeller en tant que ministre de l'éducation le gouverneur m'avait demandé d'aller voir le président de la république mais je sais qu'il est en train de nous suivre cet argent là boo xamante ni Yeumbeul Sud moo bénéficier wu ce sera utilisé pour la réalisation d'un lycée technique et jàpp naa ni loolu la SONES ne devait pas refuser de mettre à notre disposition les mètres carrés je vous remercie